télé bu mag émission bu mag te bees émission bi nu mu tudd le soir. Bonjour tout le monde, je amina Aminata Ban, journaliste et nouvelle présentatrice de votre toute nouvelle émission Le Soir, n'est-ce pas Diara Effectivement Amina, une toute euh, nouvelle émission Le Soir. Le Soir moo leen fas yéene gunge ngir daal di mottali bés bi ci ay xibaar yu werte te wóor euh, donc dinañ ci ànd ak suñuy invité waaye nag Moustapha Mbaye chroniqueur bu mag bi dina fi daal di teew. Le Soir émission bi tudd du lundi au jeudi di ngeen ma ci am comme ànd si ak sunu ay invité ngir bëggal leen. waaye tamit dinañ fi dalal honorable député maire Ahmed Aïdara. ñu ma ciy invité à de vingt heures bu juróom-ñetti waxtu ci guddi jotee. ñu nar ci faram lépp li nga xam ne mooy actualité ñeel wàllum politique wala wàllum sax sport wala les faits sociétales. 2A TV la le soir xaar lañu ñu ngi ñëw.